fii ci quai de pêche bu yara nappkat ak acteur de pêche yi ñoo doon amal ab point de presse ngir jafe-jafe yu ñuy dund si géej gi te dara waralu ko lu dul état bu Sénégal ci seeni kàddu ñeel licence de pêche yu ñuy attribué bateau étranger yi. li ñu fi dajale mooy yàqu-yàqu yi ñuy metti si te moo acteur de la pêche ñëpp di ko jooy moo xam mool bi dem géej la moo xam marière bi la moo xam baana baana bi la ñëpp ci yam jafe-jafe yooyu ñuy dund nag moo moo ñu dajale fii te Sénégal yëpp koy xeexandoo tey suñu état nag de topp géej il jaay ñun nañ ci nañ ci nañ ba fu Sénégal ci ku ci ci nañ fa de presse bi pour li nga état bi amul lu muy lu lu licence de pêche yo xamni mi koy navires étrangers plus particulièrement chinois pour ñu ñëw bokkaat si li nga xam ne mooy licence de pêche yi nga xam ni moom mooy yi fi nekkoon ak ay renouvellement de pêche yi nga de licence ñu ni loolu bu amee si jamono jii ñu nekk nii moom mooy res rey nañu pêche artisanale bi loolu bu amee moom mooy rey nañu secteur de la pêche bi mareyeur bi micro mareyeur bi glacière bi chaîne bi yëpp day dee ndax ku ci nekk sa gis-gis ak sa dund yaa ngi ko tegoon ci wàllu napp gi baana baana yi géej rek la ñu xam jën la ñu xam a jaay kon nañu état bi dimbali bàyyi ñu géej gi bato yi ñu koy jaay ñu dimbali ñu te yàlla tax. daanaka kenn desul ginnaaw muy mool ba ci mareyeur di artu président bu Sénégal ba pare di ñaawlu ci moto yu baaxoo yu mu leen jébbaloon. discours du ko def sax ba tudd mool xalaatu ko sax pour moom ñun ñun duñu ay nit te réew mi dam la ne ba fu muy sotti la muy defal baykat yi di ko defal ñeneen euh, euh, yeneen yi war nañu ko mën a defal amul benn mool bu mu defal benn dërëm subventionné na fi moteur. jaay ji ñu naan un ay naxe kese ay dóor la woon moteur yaa ngi ne yokku géej gi nag jaay na ko ba mu jeex léegi nag ñun sunu pexe xam nga lan la na mën a dindi li mu def mënuñu ko ñu jël suñu gaal yëpp ñu delluwaat clandestin dem yóbbu sunu njaboot ñu dem beneen réew jàpp naa ne li ñuy xaar ci moom mooy fii ak semaine bu ñu leeralul ni licence yi ni mu demee daañu defaat leneen lu gën a metti lii leneen lu gën a garaaw